jërë ngeen jëf mbokk yi déglu Baol Média FM ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen bége di leen ñaanal jàmm ñëw ak yéen ci seen émission bi ñu tuddee xew-xewu bés bi ñu ciy waxtaane lii teel askan wi xew-xewu bés bi nag daañu ko am altane talaata ak àllarba yenn saa sax ñu sartaagal ba ca alxames lan cay waxtaane nag lépp lu yitteel gox bi lay doon moo tax dañuy nuyu ñi nuy déglu ci biir réew mi ak ca bitim réew te di leen bége di leen ñaanal jàmm ak wér ak gudd fan daanaa ci ànd ak war xafaal waaye xam nga ne moom moom ab seex la gëj nañu ko gis ci émission bi waaye doom baayam fàllu fall ñoom yàlla dogal na bokkuñu jikko ndax fàllu moom moom seexagut Galas Fall maa ngi lay ziar su ko defee maa ngi ànd itam ak uh, DJ Kamori borom Touba Babërin uh, ñu siq waxtaan bi rek fàllu njëkkalu nuyoo tey moom kamoori mooy gan ci émission moom. Mhm. waaw salaamaaleykum mbokki auditeurs yi auditrices su Baol Média FM nuyu naa leen bu baax di leen ziar. di nuyu mboolem koo xamante ni rek yaa ngi topp ci 88 point 5 ñu ngi leen di nuyu waaye itam di nuyu képp koo xamante ni rek yaa ngi topp ci sunu ay plateforme euh, nii nañ leen bu baax ziar leen am mbégte di àndaat ak yéen seen émission xew-xew bés bi waaye itam di cee feggoo ak euh, Mouhamadou Diop Thiat euh, saa su nekk di am mbégte ànd ak moom ci bile émission comme ni mu ko waxee rek di nuyu itam DJ Kamori sama waa ji maam Gorka gars yi dañuy laaj Kamori ji lool. waaye maam góor kala tudd waaw gars yi nañ Kamori moom du tuur maam góor kala tudd kon mu ngi maa ngi def wax lu mu warul wax sax ma mbaa gars yi duñ ko duñ ko lëggéey moo ma jaaxal moo hmm. bul fàtte fii am nay liggéeykat de na hmm. ko foofu rek bul fàtte ne jamono am na waaj borom audio yooyu fekku la fi di ko foofu rek moo tax may def ko may def sama discours bi gaa yi di ma femm fàllu Mm. ay audio génnoon na fi de benn waay boo xam ne nii ndeysaan daf ñoo bañoon lool. mu ne woon bu sañoon étage bi day daanu sama eh. kaw quoi. non. moom benn daanagul ca kawam. a ah, kooka daal ab ab ab maanaam. Mhm. nga rajo bi nag. Mhm. maanaam diggante deux mille diggante deux mille dix neuf ba deux mille vingt ba bi muy tëj mil 2020 maanaam Mbàkke région bi buñ déglu bool mel ne demeen dégluwuñu rajo mhm. am na nu ñu mu neexoon am ñu mu wara loon nag ñuy gëstu Modou Diop nangam ak nangam Modou Diop boobu boo gisee mu sol as rek akus mbubbam waa ji daal xam naa dafa xool xool mënatu ko muñ mu ne daal su ma noon a fexe waaw taalal lumière yi voilà nga defaraat caméra mu jël kamoor yi moom kamoor yi ñuul wala làmp yi moo moo leerut maa ñuul mu ne mënoon fexe ba euh, rajo euh, étage bi daanu sama kaw ak yeneen i wax sax moo tax gis nga àdduna mhm. maanaam nit ki la ko yàlla may danga ko koy da ko koy nangul soo bëggee noppaliku nit ki li ko yàlla may danga ko koy nangul ndax Euh, waajur yi bu ñu liggéeyee yàlla day ñëw ak ak baaxam ak coobareem may nit ki mm-hmm. lam ko may nag soo ko nangu doo am jàmm mm-hmm. li yàlla may nit ki ku ko nangut doo am jàmm te doo neexle te bokk na ci li tax nit ki gën a neexle mooy muy nangu dogalub yàlla Baol Média yàllaa ko may mm-hmm. ci département bi rajo man nañu fi doole de rajo mën nañu fee dàq studio waaye ku ñu ëpp écoute amu fi mhm. loolu moom yàllaa ko def te boo weddee li ma la wax tey Diagne Faye di def émission fii am ku toog fee di def li Diagne Faye di def nga xam loolu nag danga koy nangu ni nga nangoo de président Macky Sall moo yor réew ak nu mën di mel mhm. nga nangu ne yàllaa ko ko yàllaa ko teg foofu da ngay nangu ne yàllaa dogal fàllu faal buy yeewoo fii ak ak euh, euh, kii warxa di def émission ni leen nit ñi di dégloo loolu danga koy nangu mm-hmm. soo ko nangu dangay ngay sonn da am problème da am dëkk stress wala nga nekk fa nga nekk ba def fa njaaxum ñu génn la dëkk bi far mm-hmm. wala nga nekk fa noo xam ne yow dañuy xam ne yow ay njaaxum rek moo la fa bàyyi moo tax euh, yal nañu yàlla defal jàmm sëñ Fallou waaw audio yooyu kilifa yu bari déglu woon nañ ko commissaire bu fi newoon déglu na ko ñenn ci suñu xarit yi ñu bari déglu nañ mu doonoon wax ju ñaaw yéene ju bon doomu jàmbur joo xam ne day taqale rek ndeysaan mot jóob caan moom ñëpp xam day taqale rek li tax askan wi di ko bàyyi xel yàlla dogal rajo bi féete askan wi loola ni neexu la nga ne daal dinaa fexe mut jóob bàyyeekoo fi daal wala ma xiram ko ba étage bi daanu ci kaw metti woon na ci ñun de lool sax waaw waaye nag ñu ngi ñu ngi koy nettali nag mhm. kamoori waaw euh, anani pulaar e anani pulaar kay anani seeɗa walla anani mawɗo e mawɗo jeeya mawɗo anani mawɗo <laughs> kono kay yow man kono kay ɗotuñu waxati wala mawɗo moylu rey lu rey <laughs> eh, a seeɗa moylu tuuti ah, nañ ñam si wolof bi bala <laughs> may dérapé ayca kon bisimila ajo salaamaaleykum auditeur biñ may jàngal làkk pël ah. li ma ci njëkk a dégg lu ma nettali liñ ma ah, wax man fa ma toog di ko wax ndekete loola laa ilaha illallah ay man. Badou. Badou kii ne rek. kay jees ajo sëñ Fall. sëñ Fall yaa ngi sëgg di reere lan la. sooy laa bëgg dund yow. yàlla bëri na sutura. salaamaaleykum sooy laa bëgg dund yow. ah ma nuyoo. salaamaaleykum auditeur auditeur su bool. yow xam nga lu la neex. Ah. moom bàyyi laa bëgg kaañoo rek. yàlla di waxul kenn dara yàlla bëri na sutura. yàlla mu waxul kenn dara. wallaay ndeysaan bëri na sutura. aja mi ngi noonu di nuyu kilifa di nuyu kilifa aada yi nii leen jaari leen eh, di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax tey nuyu ñi nga xamante ni si ni ñoo ngi un peu partout dans le monde. tey bàyyi xel Baol Média 88 point 5 FM moo xam biir réew moo xam bitim réew te ñu bàyyi xel jàpp ni ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax rawatina seen émission bu mag bi nga xamante ni si ni taarkaale mag ñi dañ bàyyi xel xale yi taarkaale di si jàngee lu bëri muy xew-xew bés bi taarkalla tey nag ñu nar see ànd ak uh, suñu kilifa taarkalla di El Hadji uh, Modou Diop Thiat di ko kontaani bu baax waaye taarkalla feggoo ki nga xamante ne si ni mooy l'international El Hadji Fallou Leuz di ko biggee bu baax a baax waaye di jëkka mori taarkalla borom ngaay mexe ca wet ga di leen kontaanee bu baax a baax a baax mi ngi noonu foofu la ñuy tegandi suñu nuyoo ba si kanam tuuti incha allahu rabbi jërë ngeen jëf. waaw yow Fallou tey <laughs> dañuy animé. xam nga nuyoo bi mënu ci woon a ñàkk gars yi dañu ko doon xaar gars yi bu ngeen waxee Kamori rek lañ toog di xaar. Eh, man nag kii euh, Fallou. Mhm. man damay baalu ak euh, sama auditeurs yi. <laughs> gëj naa animé samedi. Mhm. xam nga fan yële Big Man moo fi newoon moom itam doon animé mbalax kenn xamul day rap kenn xamul lu muy def. <laughs> Euh, barki dem am na ñu ma woo surtout ñu baalu àq nag Lamine Loum. bokk ci ñi bëggoon taxawal jotaayu fans Modou Diop Thiat ma ne ko loolu day diis ci man nañ ko def fans rajo bi. Mhm. wala émission bi yooyu moom àggaguma fa. Mhm. Mhm. kooku. émission bu jot maanaam moom mooy njëkk a partagé photo yi yenn saa yi sax nit di def émission yéen du ngeen ko yëg de mais dina ca dagg extrait bu dee tey am na benn jour ma gis euh, Oustaz Abdou Gueye di def live mu dagg extrait vidéo yi di ko dugal xam nga yooyu dafa am solo. Euh, ñun lu luñ luñ mën di nekk ak ñu ñu mën luñ mën di am. nañu bàyyi xel suñu auditeurs yi ak suñu auditrices yi. Mhm. ak ñi nga xam ne fans club Baol Média lañ donte gëj nañoo def ay yëngu-yëngu mais ñu jara ñu jara nuyu lañ. Mhm. ñu jara ñu jar di bëgg lañ mooy fans club Baol Média dañuy sonn trop suñu ginnaaw te ñun duñ ko yëg. Mhm. donte yàlla dogal na xëy na ñoom gëj nañu daje wala gëj nañu def ay mbir loolu moom xam naa Ibrahima moom du ñàkk daañu ko invité fii. ñu ngi leen nuyu di leen ziar di nuyu suñu waa jooju Lamine Loum bu leen koy fàtte. Lamine bëgg rajo bi la. Mhm. su ko defee rek ñu baalu àq ci samedi yeeg dimanche yi nga xam ne jàll na fi te jotuñu noo dégg. man naa am tey ñu fay leen ko ci. Mhm. ban heure laati sax. tey la lundi. waaw ci heure kii bi seen émission boobu. 17h 17h mën naa am ñu fay leen ko ci tey. su ko defee tey ñu bëgg a waxtaanee dëkk bi xam ngeen ne sécurité moom ñàkkum ndox rek daa doy sëkk. Mhm. waaye dem ba ñàkk sécurité bari fi lool euh, loolu nag responsabilité yi bari na ci xam nga fan yële defoon nañ fi émission wax ne responsabilité yi dina dem ba ci chef de quartier yi ak délégué de quartier yi ndax seeni yitte waru doon jaayi pàkk rek mhm. kon loolu war nañoo mën a càmbar lan moo ko sabab ñu def ci ay waxtaan ba xam saafara dina ci am mhm. ndax dëkk bi amatul sécurité bala nga koo xam nga wàcc timis di ñibbi fu mel ne Daaru Salaam wala nga ñibbi fu mel ne Mbusoobe wala nga ñibbi fu mel ne Daaru Sow wala nga ñibbi feneen feneen feneen mhm. su ko defee ma bàyyi leen ngeen toj wesar ci junj ci auditeurs yi itam ku ci bëgg a bokk mën nañoo jaar ci 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 sëñ Fallou bisimilah waaw di euh, euh, rafetluwaat rek comme li nga xamante ni moom la ñu war a waxtaanee muy insécurité bi nga xamante ni moo nekk ci réew mi rawatina euh, diggante Touba ak Mbacké nga xamante ni émission xew-xew bés bi lu ci ëpp ci foofu lay sukkandiku pour di wax ak ñi nga xamante ni ñoo di auditeurs yi ndax nee naa la. Euh, rajo bi askanam mooy yitteem te li yittee askan bi toujours ci loolu la ñuy waxtaan tey nag bu ñu jël si waatee di waat li nga xamante ni moo di insécurité bi ci euh, dëkk bi wala bi ci gox bi euh, lañ ca mën a wax yaatu na ndax toujours rek dañ koy daal di séddale kenn ku nekk responsabilité bi nga xamante ni am na ko ci muy ci ñi nga xamante ni ñooy état bu Sénégal waaye tam ci ñi nga xamante ni ñoo di askan bi bu ñu nee askan bi tamit bàyyiwul kenn koo xamante ni yaa nga ca gox ba soit nga nekk délégué wala nga nekk chef de quartier ba wala nga nekk habitant wu quartier ba ñoom ñëpp dañuy daal di ci euh, bokk ndax ku nekk am na loo xamante ni mën nga ko caa taxawee. Mhm. Euh, waaye toujours rek dafa am loo xam ne dañu ko war a jiital muy sunu état d'abord nga xamante ni moom mooy responsabilité lépp loo xamante ni bëgg-bëggu askan bi la mu am mu bañ a am ñoom seen responsabilité d'abord parce que boo xoolee toujours dama koy wax euh, Touba dëkk la boo xamante ni dafay màgg. dëkk buy màgg euh, lépp loo xamante ni euh, day ànd ak moom rawatina ngay kaaraange da ngaa war di màgg yow itam. Mm-hmm. parce que ñay màgg ab population la boo xamante ni ñooy màgg. Mm-hmm. population boobu di màgg am beneen secteur boo xamante ni fa la ñu féete ñooñu dañuy soxla kaaraange mais toujours damay réclamer que ne état bu Sénégal pour mu euh, pour Touba ak Mbacké am kaaraange il faut que mu yokk fi li nga xamante ni mooy ay poste police poste police yu bare bare bare bari yoo xamante ni dafay am. Euh, ay matériel xam nga post police bu ñu nee poste police tey waxuñu tey. Mhm. benn benn benn benn euh, roq su ndaw benn cantine bu ndaw nga samp ko ne lii mooy post police bi kenn nit dafay xëy nekk journée bu lëm euh, bu wàccee dem na. waxuñu lool bu ñu koy wax dañ koy wax ci ay secteurs yoo xamante ni par exemple tey comme boo dikkee Kër Baylaat. te mhm. station bi nga xamante ni foofu noonu police ba fa nekk. nekk na benn police boo xamante ni am na solo parce que fa mu nekkee baax na mais pour ñu dooleel ko il faut que ñu def ci ginnaawam li nga xam ne moom moo ko moom la ëmb ci ginnaawam foofu ñu def fa ay poste police yoo xamante dañuy man di renseigner di joxante ay information pour ñu mën di dem nu mu gën a gaaw ndax des fois day am ay ay problèmes yu xew par exemple nga dugg biir mbajaaneen sama mhm. koñ te nga xamante moom laa gën a miin da nga fay par exemple am benn benn benn infraction boo xamante ni am na fa nga interpeller police Euh, la fois passée ba fa amoon benn booy boo xamante ne doon sàcc agressé sax la doon def bëccëg ay yor-yor ay 11h mais ñu ko téewee biñ ko jàppee bu mu wooyee police avant police di ñëw gàtt gàtt gàtt 13h demi jot na. te li ko hmm. waraloon mooy ñoom dañoo demoon feneen foo xam ne dañu faa war a na wuy ji loolu moo waraloon te c'est-à-dire que nañu ay oto. manqué nañ ay personnel manqué nañ aussi matériel yoo xam daf leen di permettre ñu mën a dem euh, wuyu ji automatiquement parce que nit ki mën naa mën naa am matériel eh, mën naa mën naa am personnel mhm. mën naa am mais du dem parce que amul matériel boo xamante ni war na mën a dem pour affronter ña nga xamante ni ñoo fa nekk parce que boo leen di woo la laaj lan la ñan ñan la lan moo fi xew bu mhm. dee ni euh, oto boo xam ne dañoo armé pour taxaw di sàcc di ñu ñëw mais est-ce que arme yooyu tamit dinañ leen ko jox bu mat sëkk arme yooyu dañ leen ko war di jox bu mat sëkk jox leen ay oto yoo xamante ni tamit oto yi dañuy ni heure bu oto tàkkee rek dina am personnel bu ci mën a ne bu ñu wootee fenn ñii bu ñu duggee ci oto ba dootu am ñeneen ñu dugg ci yeneen oto yi c'est-à-dire que personnel manqué na mm-hmm. te loolu damay gis personnel dañuy manqué waaye ci jamono bi manqué damay gis ay nit yoo xamante ni dañ leen di dañ leen di libéré ñu nekk ci mbedd mi ci jamono boobu auto islam da ngay gis ñoo xamante ni peut dañ leen di wooye ay ay comme agent agent agent sécurité xamuñu ko xam seen mhm. euh, ASP yi euh, agent sécurité publique xaw ma proximité euh, waaw mooy ñooñu noonu nga xamante ni mooy ASP yi nga xamante ni ñoom itamit des fois dañuy def liggéey bu am solo pourquoi pas ñooñu itam mën nañu leen a former dëgg-dëgg renforcer leen ci liggéey bi au lieu que nga nga nga bàyyi benn secteur boo xam dañoo am fayir liggéeyuñ amuñu amuñu matériel matuñu te nga bàyyi ñoo xamante ni mën nañu a accompagner ci liggéey bi te parce ñooñu dañoo jëw volontaire xam nga ASP man dama ko daan dégg bu njëkk rek waaye ndeke comprendre bu mekke ASP mooy nit koo xam dafa dégg volontaire dama dikk pour jàpp sama kaaraange réew mhm. cest à kooku séntuwul salaire donte nañ ko jox salaire waaye séentuwul salaire parce que fa salaire bi du force mais moom moo ñëw volontaire léegi ki nga mhm. noonu formé ko pour mën koo yokk ci kaaraange réew mu mën cee gën a taxaw waaye bu fekkee ñoom dañ leen di yokk di leen fay au moins kenn ku nekk ñu lay fay gën gaa tuuti cinquante mille donte ni du fay sax du fay dara mais ñooñu tamit war nañ leen a mën a yokk seen xam-xam yóbbu leen ci post yu baax yi ñu mën a yokk kaaraange mhm. nga xamante ni ñoo yor tamit ñu dooleel seen ay poos parce que nag poos moom bu feesul wax dëgg yàlla pour nga hmm. mën a exécuter yenn mission yi poos ak matériel bi très dafay dafay jafe hmm. bon loolu laa amoon ci lu may njëkk wax ci ñi nga xamante ni ñooy euh, état bi damay bàyyi sa Kamori gars yi ñu daal di euh, doxal hmm, waaw Kamori waaw euh, mu mel ni taarkaal la Alaaji Fàllu tënk na lépp ba tax na Euh, jamono jii nii nag sécurité bi euh, askan wi ngi koy coow bu baax a baax a baax euh, muy liggéey naan foo bët yoo gis mu xonk taarkaala looloo ko xonkal. Uh-huh. tamit li Fall wax sànq ni Touba ak Mbacke taarkaala dafa nekk dëkk boo xamante ne si nii day gën di yokk population bi taarkaala di gën di yokk ba tax na sécurité bi tamit ñi nga xamante ni si ni macha allah mooy suñu état bi di gën a yokk poste de police yi comme ni ko Fall waxee sànq rek ñu éviter ko benn euh, cantine boo ndaw boo xamante ne si nii euh, dañ koy teg si di euh, angle yi moo xam si mbedd yi ba tax na benn police rek nga fay gis loolu tamit mënuloo dara. ba mhm. tax na man des fois tamit dama gis auto de police yoo xamante ni si nii taarkaala dañuy war si dëkk bi mais teewul sécurité bi day gën di law loolu daf may jaaxal ba tey mais tamit bu loolu tamit war nañ see xoolaat bu baax a baax a baax. lan moo ko waral waaw lan moo ko waral. Euh, chaque jour am ndox ba pare di mar. waaw mi ngi noonu loolu dama jaaxal damay gis chaque jour man mënuma génn fii nii wala mënu mësuma taxaw si balcon bi te duma gis auto police bi euh, sécurité euh, di di di boucler wu di dem. di dem ci jaar ci télé bi di jaar ci télé bi mais est ce que ñuy def yëfu saay saay itam ci télé bi la ñuy la ñuy nekk. non duñ nekk si télé bi moo tax tamit xam nga auto police buñ dee jaar si télé bi rek des def daf si baax ñu dugg si ruq ruqaani. Mhm. surtout ruq yoo xamante ni si ni taarkaal nit ñi bëriwul luñ fay dem. yow miinagoo mba miinagoo Mbàkke loolu de. waaw miinaguma ko à 100 pour cent mais dafay baax yenn sit euh, yenn euh, lii gars yi di fa dugg. ndax yéen gis nga booy dem Mbàkke xam nga fii kii DJ dëkkoon mooy a Kabo. waaw soo ko paasee tuuti. Mhm. jëm ca côté garage euh, garage bu bees bi. dëgg la côté boobu ci fii ñuy defaree camion yi. Mm. moo gën a ñàkk sécurité. si dafa ñàkk sécurité est-ce que loolu tamit jëlul tamit des fois. Mm. ñoom ñi nga xamante ni si ñoo ngi ñuy bàyyi xel suñu mbokk takk der yi ñu ñu bu ñu yoree seen auto de police bu ñu dee wër ñu àgg ba foofu noonu tey. Mm-hmm. bu jëree sax ñu ñu xaw a mel ni lu génn dëkk bi tamit loolu def siy baax mais tey benn bis ñaari bis nga dégg agression yi bëri na fi. Mm-hmm. wala boog agressé nañu diw yooyu tamit dafay dafay dafay dafay doy loolu tamit daf si baax benn instant état bi jàppale leen si bu baax a baax a baax si euh, si si si seen seen jumtukaay. jumtukaay bañ koy di garder pour manifester wala pour. mi noonu am na ñoo xamante ne si man loolu daf may jaaxal manifestation bu amee nga gis koo xamante ne si nii li ñuy génn seen i oto wala li ñuy génn seen pistolet loolu dafay ba daf si bëri torop mm. te bu yenn affaire amee tarkaala mooy loolu doo gis dara dafa mel ni yooyu noonu yenn manifestation rek. moom mooy kii waaw moom moo ko tax a jóg te loolu noonu tamit loolu. du yoon loolu dañ ko war a waxtaanee. jamono ji nga xamante ni si nii ah, ba Média gars dañ koy bàyyi xel. Mhm. loolu daf si baax ba tey ah, poste ah, poste de centre de police yi. gën a mhm. bëri si koñ waaw gën a bëri. ba si koñ yi tamit gën a law bu baax a baax a baax mhm. mais am na ñoo xamante ni si nii ñu baal ma mais seen intérêt taal kàlla moo leen fa tax a toog fa ñu nekk. maanaam day nit dañuy dañuy jàpp di jëkkamoor yi tey fàllu day fàll leuse day xam ne man euh, jaaykatu kii laa mhm. euh, mu dem dénoncé ma police ñu yóbbu ma ñaari fan ñetti fan ñu ñu ma am lu ma leen jox ñu libeera ma ba tey su ma génnaatee def la ko su dul noonu tey bu leuse yóbbuwaat ma fa tey mu génnaat gisaat ma fa da bu leuse day dem ba day naan kii man dootuma ko dootuma ko réclamé te police dootuma ko kéeti dara mhm. loolu noonu tey daf si loolu dafa baax benn instant tamit ñoom ñu taxaw seetlu ndax am na bu bu ay liggéeykat bu amee am na koo xamante ni si ni euh, moom ñu jaaj ci wet gi. Mhm. mais loolu tamit lu lu jar a la bu baax a baax a baax. Mhm. dëgg la am na solo DJ Kamori xam naa ne moom te de moom daa mel ne xaw ngaa dégg wolof <laughs> tey moom xaw ngaa dégg wolof quoi suñu mhm. xam nga fan yi yaa ngi fi dégg ku ñu rey suul ko ci mbalit. xam naa Ibrahima sax bu dee mi ngi dégg nañu def signe mhm. su ko defee ñu jokkoo ci ak moom ndax am na information boo xam ne ci koñam boobu la xewe woon euh, soxla nañ ci ay vérification euh, ba xam kooku nu mu demee ndax ko ànduloon yéen sax joxe ngeen information dafa mel ne mhm. euh, ci ko xam dañ ko rey suur ko ci mbalit loolu wala sànni ko foofu daal ndax donte da doon da doon jël yëfi jàmbur doon sàcc téléphone waaw am am na ci ko xam moom moom moom euh, jëlul yëfu jàmbur moom. Mhm. moom ci ci li ñu ci man man sax dama jàpp ne kooku xam naa war nañoo xoolaat ba xam daal ndax dafa ànd xelam wala ñan ñoo ko kar. Mhm. beneen bi topp man sama koñ ba ma dëkk bërki démb ay tàkkusaan yooyu. Mhm. koo xam ne dañ ne ku nu jàppoon mu rëcc la. information yi dese na ma leer parce que maa ngi ci doon waxtaanal sama soxna bii rek koo xam ne dañ ne. ku ñu jàppoon mu rëcc la maanaam ci bandi bu ñu jàppoon mu rëcc comme yi ngeen di wax noonu mm-hmm. maanaam bàyyee bàyyi bi moo mën a ñàkk bàyyi bàyyi koo xam ne mm-hmm. war nañ ko corriger daal ba ba mooy loolu mm-hmm. biñ ko jàppee mu rëcc mu dugg ci kër xam ne kër gi soxna si moo fi nekk soxna sangu ba génn mu fekk ko fa mu taxaw mu laaj ko boppam soxna si bañ mu laaj ko portable soxna si bañ mu jam ko paaka nangu portable nangu xaalis bi mu yoroon am ñu naan juróomi junni la am ñu naan fukki junni la am ñu naan fukki junni la mais lu man di xew rek. Mm-hmm. femme bi yóbbu nañ ko hôpital dem na ba ñëw. Mm-hmm. xam nga ku sangu ba toog di diwu nga dugg foofu. Mm-hmm. moom mi ngi gàddu ay saako bañ koy wër tëb na ba dem. xam nga moo tax jigéen ñi surtout suñu dëkk bi tuuba wax dëgg yàlla jigéen ñëpp bëgg ay daje waaye ñoom dañ ci raw bëgg ay daje ay natt ki sànni daje te jigéen dafa war di toog ci këram. Mm-hmm. tey fi mu toll nii tey bu doon tey waa kër ga toog nañ fa euh, yooyu mën naa bañ mm-hmm. mais dañu bëgg daje. Mm-hmm. te booy dem tëj sa kër mën nañ laa ginnaaw bu fekkee ñenn ñi dem na ñenn fa des fa kafane mën nañ ko fa fekk. fi mu toll nii waajooju ba sànq kenn gisuñ ko te loolu doy na waar. femme bi. yóbbu nañ ko hôpital tane na parce que euh, fam ko jam demewul noonu koo xam ne mën na ko rey mais loolu tam lu doy waar la sàcc xar yi bari lool sàcc ganaar yi bari lool mm-hmm. te yenn saa yi sax am ñuy tooñ ne dañoo am sàccu ndëkkaale maanaam koo xam ne day xam mm-hmm. parce que ku mel ne baylaat niñ ko sàcce mm-hmm. baylaat aan loolu moom ka ko sàcc wax dëgg yàlla ku doy waar la ndax yow tijji bitig di roñ di dem ak a ñëw loolu ñàkkul gidd ci koñ ba de mhm. ñàkkul ku xam ku xam ku ko xam wala ku xam loolu mhm. parce que yi nga sëñ Fall mhm. avant ñuy sàcc sàcc ga am muus lañ fa tër rendi ko ca buntu bitig ak yeneen yoo xam ne da xam ne lii moom cin fukkut ba nut parce que ki la rek moo lay contre maanaam ki xam sab denc ki xamal yenn yi moom moo lay def yenn yi mais loolu nekk lu doy waar loo xam ne vraiment métti na te mi ngi xew ci kër yi mu ngi xew ci koñ yi beneen itam fàllu ci insécurité bi ñu sóoraale ko mooy sàcc yi ñuy sàcc xale yi mm-hmm. xale yi nañu moytu oto bu taxaw ne da leen di yóbbaale ñu dem gone ñun ba ñuy ñun de ba léegi ay gone lañ. Mhm. mais dañoo ragaloon lu bari te di ko sóoraale. Mhm. dañoo ragaloon lu bari te di ko sóoraale ragaloon nañ ko ñu may xaalis ragaloon nañ koy dem ñu ne ko papa ji yóbbaale ma te xamoo fu papa ji jëm te léegi tonton saay saay yeeg yaa ngi ci dëkk bi. Mhm. waaw xam nga euh, li mu wax nii lu am solo la. moom euh, kilifa bi euh, fi mu doore woon rek laay dikkaat. Mm. maanaam sàcc yi di am ci ci gox gox yi ci koñ yi. sàcc yépp ka ca jiitu mooy ka ca koñ ba. Mm-hmm. moo leen di moo leen di wane de moom. nday sàcc nday sàcc dafay am. Mm-hmm. nday agresseur day am. Mm-hmm. maanaam agresseur bu am sañ-sañu dugg kër jàmbur. Ah, am na ko ko jox signe bu bor bu dugg fa. am na ko ne ko boo duggee nii ak nii ngay doxale pour mën a réussir lii ak lii. te ka koy wax ca koñ ba lay dëkk bu dëkkul ca biir kër gi sax ca koñ ba lay dëkk. bari na ñoo xamante ni seen i sàcc ñu ngi seen biir kër. bari ci ñoo xamante seen i agresseur ñu ngi seen biir kër. cest à ko loolu mooy problème boo gisee affaire u insécurité bi maanaam jafee réglé. Mm-hmm. naqaree réglé parce que ñun ñu ñuy agressé ñu ñoo ñoom a dëkk. Mm-hmm. ñun ñi ñu sàcc ñoo ñoo a dëkk. tey jii da ngay yor sa jakarta fii ñoo ñuy jaay itam très bien. ñu la fois passée euh, bi ñu fi faatee euh, benn waa ji dëkk fa la. Mm-hmm. mooy ko yoroon moto bi. waaw tur bi laa fàtte bi ñu ko faatee. Euh, bi ñu defee interview euh, bi bi bi bi si gisee xaw ma nan gisee. Mhm. bi ñu demee defee interview fële ci euh, ci ci station bi. Mhm. waa xam nga lu mu ñu wax. Mhm. ñun suñu bopp ñun ñoo war a bàyyi yoolente bi. c'est-à-dire que ñoom seen biir. Ah. dafa am ñoo xamante ne dañ naan yor na moto bu rafet dañuy jaayante seen biir dañuy jaayante seen biir moom mu ne ñun suñu biir ñoo war a bàyyante yoolente bi wala jaayante bi ci suñu biir lañ ñuy jaayee. kon ñoom seen biir ñooy jaay diw. ne ko diw ak buy wàcc kat fii ak fii lay jaar mm-hmm. diw kat heure lay wàcc heure bi lay wàcc bu wàccee nee lay jaar mm-hmm. boo taxawee fii heure teel boo demee di ko fekk dina la fekk te bu la fekkee mën nga ko affronter jël ko c'est-à-dire dañuy jaayante nice loolu moo tax mbir mi naqaree lañ des fois da dem sax ci yoon ñoo dem leen régler ko seen biir parce que dañuy xam ne mbir mi seen biir la mm-hmm. te buñ ne buñ buñ buñ téewee kii day mel yow lañ téye est-ce que ma nekk fii fii ma ma ma réclamé dañ ma sàcc dara ma dem ci yoon. Hmm. yoon def enquête am gis war xaa ko sàcc daan dem leen seen biir ngeen <laughs> waxtaan. non si daan waxtaanee seen biir parce que day xam ne. Hmm. bu nee war xaa moo bu téyee war xaaj man suba maa yóbbul war xaaj. <laughs> c'est ça le problème loolu moo tax mbirum c'est que mbirum sàcc mi agression bi bari. Mm-hmm. ñu baree bari agression yu baree baree bari ku la xam moo la koy def. Mm-hmm. ku la xam moo la jaay diw diw attaque la mu jeex. Mm-hmm. mu dal sa kaw mu jeex moo tax toujours maanaam koñ yi dañoo am part de responsabilité ci insécurité parce que li li ko waral mooy nëbbante bi ñu nekk seen biir. da ngay xam ne sa doom jubut ba pare ngay nëbb sa doom daa jub. te mu leer na sa doom bii nii day sàcc moomut loxoom. parce que ni ni sa doom di génne ci mbedd mi di sàcc sàcc la yow noonu la la sàcc ci biir kër gi ba génn ci mbedd mi. mais yow doo nangu ne sàcc la parce que ñëpp a ngi naan ko sàcc nga le fait que nga koy nëbbal ayib suba noonu lay toje dëkk bi bis bu tojee dëkk bi nga moo tax chef de quartier nii rek bu ñu yemale seenu njiit ci njaayum suuf kese nañuy contrôler seen gox gox bi nan ak nan la war a demee xam nga des fois nit di nit nga ko jàppee daaru mar naan fekk mu nga dëkk jannat sàcc daaru mar naan fekk mu nga dëkk jannat mhm. yooyu moo bari ci gox bi beneen bi mooy comme ni ko la Diop wax léegi nii ci sàccum xale yi loolu moom temps yi daa xew mhm. man nag waxoon naa ko fii la fois passé nee naa ñaar yi dama koo seetlu ci réew mi te jamono jii rek lay am muy mbirum phobie ak mbirum sàcc xale mhm. bala muy gën a bëri ñu ne élection mooy jub mhm. bala ñu ne bala ñu ne gën a bëri rek élection jub bu élection jubee mbirum phobie day bari mbirum sàcc sàcc xale yi day bari je ne sais pas nag lu ñu jublu ci sàcc xale yi mhm. xaw sacrifice la xaw lu mu ci mën doon mhm. mais toujours rek li ñuy wax di gën a sensibiliser ñi nga xamante ñoo di parents yi mhm. nañu vigilant vigilant bi du dara lu dul ni seen doom yi nga xamante daan leen bàyyi ñuy jàngi école ñu leen di bàyyi ci école bu ñu wàccee ñu jëli leen ko xamul dara bu wàccee jëli ko surtout wala nga wutal ko oto boo xamante heure wàccee mu jël ko indi ko mu bañ a dox ci maanaam ndaw ñi ñàkk yar. Mhm. day mel ne wutkatu alal bu gëmut yàlla. dëgg la liñ naan ti buree rey na borom fekk rek la bëggoon. Mhm. mais xale ñun ñun de wax dëgg yàlla. Mhm. daawuñu nangu nit euh, wooñu may nu xaalis. sëñ Moussa sëñ Fall. waaw loolu lañu daan jàngal xale yi bu njëkk dañ naan leen bu la nee caméra rek dawal dem. loolu lañu daan jàngal xale yi bu njëkk mais léegi loolu loolu loolu amatul. léegi xale yi stratégie nga leen mën pour ñu topp la ñoo bari ku xamul dara xamul dara la fois passé ñu ñu génn ci ay saaku ñu ñu génn ci yenn ñu leen dugal ci ci ñu ñu gis ci bâtiment mm. ay xale yu tuuti la yu xamul dara xale yooyu noonu da ngay leer ne xale bi dañ ko romb muy fore ñu këf ko yóbbu ah. loolu fa am mm. moo tax parents yi il faut que ñu vigilant vigilant mooy ñu sàmm seen doom yi mm. yi ci biir kër gi waaye itam ñu xam fan la ñuy fréquenté ak fan la ñu war a toog loolu mooy priorité bi te parents yi buñ ci gën a vigilant xale yi ñu sàccoon la fois gis saaku yeeg yu kenn xamul mën nañoo gis lu ko gën a pire ñu jël ñu salaamaaleykum waaleykum salaam. salaamaaleykum. moom nag daa nooy. salaamaaleykum allo. daa mel déggante moom mi ngi mi ngi taal rajo pourtant moom bu ñu déggu téléphone sax mi ngi rajo. asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum allo. ma ne yow boo boo ñu déggul ci rajo bi itam boo ñu déggul ci téléphone bi itam yaa ngi ñu dégg ci sa rajo. ma ma maa ngi leen di jégalu. bisimilah. maa ngi leen di bu baax a baax suñu. ñu ngi lay fay alhamdulilah. jërëjëf. waxtaan wi am na solo lool lool lool. jërëjëf jërëjëf. waaye ñun waa Darou Salaam de fan noonu dañoo sonal lool Darou Salaam si mm-hmm. maanaam ay agresseurs ak yu demee noonu yor ay moto Jakarta am nañ ko xam ne bari ci démb fii ci sama ginaaw la dëkk dañ ko fekk ci buntu këram mu toog. ñu génneel ko paaka daal di jël xëcc téléphone am mu bippoon teg ñoom ñu këf ko daw yëg ci moto bi. Mhm. même démb it euh, police bi mujj koo xam ne kii demee noonu ci dañ ko dàq woon portable lañ këfoon moom it yorub sareet ba ci mel noonu ci lañ ko ci lañ ko dàq ba sareet bi daanu ñu jàpp. Mhm. comme ñun daal ñun wax Darou Salaam it lu mel noonu sonal nañu lool lool lool jamono yi may wax ak yow nii. léegi léegi kin fi kin fi jàppoon démb. Mhm. moom moom moom ci sàcc yi la bokkoon wala. waaw kooku de sareet bi dafa daanu ñu jàpp ko moom nag wedd na ne bokk waaye ñu bari wax nañ ne kam àndaloon dafa daw. waaye moom jot nañ koo bantal. moom jot nañ koo dóor ba police ko mu jël ci sax. ah de baax na waaw waaw bantal tuuti baax na de. bari na lool ci suñu koñ bi jamono yi mu sonal nañu moom ñu jël seen i moom di ko nangu ci mbedd yi guddi gi bari na lool. Mhm. maanaam. wuy ma euh, sëñ Bas. waaw. maanaam xaw a bantal te bañ a gaañ. Mhm. waaw lool moom baax na moom. ah waaw moom kay moom xaw wantal tuuti rek boo kiiyee nga xaw ko wantal tuuti te bañ koo gaañ. waaw dana ci am solo. waaw loolu loolu moom baax na moom loolu am na ci solo. sécurité bi daal ñu ngi ñaan ñu gën ñoo dimbali te gën ñoo bàyyi xel bu baax a baax a baax. Mhm. non yéen moom seen kaar dañ koo yàgg a kaas ndax man ñaari bu may wàcc yoon boobu laay jaar. waaw yaa ngi dégg keroog ki fi woote woon xawoon naa saaga sax. ndax mhm. nee na dafay doomam mooyoo téléphone bi am ku ko dam ne ko nangamal jox ma téléphone. bi. waaw te xam nga suñ suñ côté bi ginaar mel dafa xaw a lëndëm. waaw. parce que bari mbedd yoo xam ne dafa amul ay poto lamp. surtout électrique. waaw dafay xaw lëndëm lool lool moo tax ngir di fi jaar guddi gi daal dafay xaw a doy waar. mais loolu nag jar na reetet ba kilifa yi yëg ko su ko defee. Mm-hmm. su boobaa dina dina ci baax daal ndax wax dëgg yàlla. Euh, mm-hmm. foofu yaayoon na yaayoon na leer nag. Mm-hmm, ndax côté boobu dafa bari tabax yu yëggut. waa bari na fi loolu te xam nga miiru armeel yi dafa xaw a gudd. te am am am ku mel ne am am galas faal mën naa këf dara ñoom ragaluñ ay néew ñu ñëw yéeg ci dugg ci armeel yi quoi. même am na ci am na ci yooyu bari na fi lool moom bari na fi ay ay cas yu doy yu fi am yu baree bari sax. mais xale jigéen yi ñoom seen dundin foofu mbaa duñu leen kar yenn saa yi di leen sàkkoog yooyu. waaw loolu moom euh, li fi am nag bëriwul waaye ñaari daal comme di di leen këf di maanaam di leen kar di di di nangu di ñor di leen forcer. waaw. loolu moom bari na fi lool lool lool. Mhm. suñ koñ bii bari na fi ñaar ñoo xam ne ñoom noonu lañ leen def jaay leen doole nangu seen seen portable ci guddi gi ci force. Mhm. léegi ko côté. waaw waaw àggaleel. te buñ ko xëccoon teg nga bañ man na laa gaañ. Mhm. man mii fan yële maa ngi yor sama benn élève boo xam ne dafa wàcc ci ci bis gi. ban la woon. ay heure gee waaw. léegi ma di ko yóbbu xam nga moom dari dafay jàng day yendu ba timis gi ci lay ginnaaw timis bu ñu jàngee ma rax ba pare. waaw. Mm-hmm. ci la ko waajuram di jël léegi nag keroog waajur bi xaw a guddee ma di ko yóbbu. Mm-hmm. Eh, ñu dem ba ci côté foofu ñu naan kàmb yi côté Daara Ndiaye. waaw. ma jàpp ci loxo mi yor sama téléphone nii di dox jékki-jékki am ñaar numéro bu dem ba ci lëndëm ñi ñu taxaw ci digg yoone waaw. nga xam ne man su ma continué woon tuuti rek eh, seen kaw laay dal lu ma un mètre. te foofu dafa lëndëm crise boo boo dee dox guddi faw yor torche léegi bi ma demee ba ba jubleen nag. ñu taxaw ci digg yoon yi ma jël torche bi ma jël loo am appareil ma yoroon jël torche bi taal ko teg ko ci seen kanam kenn ki daal di reetaan ñu avancé wu ñoom ñaar daal di arrière. waaw mais may ma jàll. koñ boobu daal moom. Euh, mais nag mais nag euh, sëñ kii euh, sëñ Bas. man li ma jaaxal mooy wax dëgg yàlla police ñi ngi taxaw ci mhm. mbedd mi. Mhm. surtout ma yoon bi jógee tu Mbàkke jëm Touba. gaa yi mhm. liggéey ba ñëw fàtte seen carte d'identité ñu leen di wàcc. man jàpp naa mm. ne duggoon ci ruq yooyu dara ëpp ko woon solo de mm. parce que wax dëgg yàlla gars yi liggéey ba ñëw kalaasu kamoor nga xam ne ñaare mën nañu animé mm. bu yàgg ñu dañuy seet seen xarit bu leen doon woo seen auditrice ndax yoru fàtte seen carte d'identité ñu jàppale man jàpp naa ne diggoon ci ruq yooyu ndax man li ngay wax nii dama koo xam man ma wàccee yoon boobu laay jaar waaye comme man moom moom ma yaaree foofu moom daanaka mooy loolu man nañ maa bañ a soxla mm-hmm. ah war nañ ñu koy dimbali de surtout ay ay lamp koo defaral moom bu dee bu baax a mm-hmm, mm-hmm. kon kon kàddu gi daal jëm Daaru Salaam jëm ca kaw noonu ba àgg raana ba ñetti poto. Mm-hmm. foofu yëpp daal war nañu fay dimbali ay ay pot lampe bu baax a baax a baax a baax. doy na waar de moom. waaw ma war nañu cee dimbali moom wàllum sécurité bi ñu taxaw ci bu baax a baax lu mel ni ramas léeg-léeg mu fi mu fi faral di dugg lu bari. doy na waar de. doy na waar daal war nañu dimbali bu baax a baax a baax. doy na trop trop trop trop vraiment. ñu ngi ñu ngi rafetlu émission bu baax a baax na. Mhm. jërëjëf ñoo ko bokk jërëjëf. ndax yéen a ngi yeete te yéen a ngi dimbali jaam yàlla yi. lool mooy njariñu rajo. waaw ñu ngi leen di sant bu baax a baax tey ñaan suñu borom gën leen defal jàmm. amiin barke alxuraan te yokk leen bu baax a baax. ñu ngi tan ñu ngi tan ñu ngi lay gërëm ndax kër boo ca bokkee. Mhm. da nga koy bàyyi xel ba yow yaay ambassadeur seen seen waa koñ Mm, ci rajo bi luñ fi war a jottali yow yaa yow yaa war a parce que yow fi nga fi joti ñoom joti wuñ ko waaw ah, kon ñu ngi lay gërëm ci loolu bu baax di la sant borom xam-xam noonu lay def waaw góor ah, ok jërëjëf <laughs> jërëjëf tey da ngay def si émission insha allahu rabbi waaw insha allah baax na man boo ñëwee après man maa ngi ñëw waa insha allah boo ñëwee rek man ma ñëw foofu <laughs> ah, ok jërëjëf ba ba ba bàyyil sëriñ bi ngay séddale séddale bukki eh man amoo uma sëriñ de gañ na maa jot sëriñ dina sawan ma waaw soo def see émission rek ma ñëw dégg nga. waaw incha allah waaw. ma. bu mu fàtte liñ ko bu mu ko waxoon. waaw voilà waaw waaw bu mu fàtte liñ ko waxoon. lool lan laa de. waaw waaw waaw fàllu bàyyi lu métti. bañ koo fàtte waaw. koo fàtte waaw. <laughs> baax na baax na ñu ngi koy sat bu baax wax dëgg yàlla hmm. moom day sama doomu bàjjen quoi dama ko xaw a yeb loolu moog sama man sama sama gars yi ma nekkal ñoom ñëpp ay doomu bàjjen la. 6 hmm. ak 9 la rek. waaw ñun moom. gaa yi ay doomu bàjjan lañ. te eh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. kaay gan kaay moom oh, moom Oustaz Albasir al al Albasir. Albasir Diop waaw Albasir ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ni mu ni mu waxee noonu la. mais euh, dafa am loo xamante ni bëgg naa ko cee dolli te yaa ngi ko doon junj léegi nii xam nga euh, ramas dafay am solo. Mm-hmm. gars di def descente. Mm-hmm. mais xam la mooy problème bu ngeen amee seetlu. Mm-hmm. dañu ne xam ne ñun sunu gars yi nii dañoo bariwul. surtout suñu policiers yi. bariwuñu mais nag gis nga. policiers wala nga xam ne bariwuñu. maanaam avant nguuru Macky Sall gii ñëw. Mhm. nga xam ne dañu respecté woon policier. Mhm. benn policier rek garde nañ daanaka dëkk. waaw ndax dañ leen a jox cër. waaw yow fi mu toll nii tey nit policier da lay tooñ dóor la. di la dóor mu leer na la yàqu doole mais danga koy jox cër. Mhm. mu leer na nam la def ba di la gaañ mën nga koo def ba fayu. mais danga koy jox cër. waaw moo police bu gaar léegi nag ñoom dañoo dem ba ñu ci bëri ci ñoom dañoo dem ba xamatuñ daraja jooju ñu amoon ndax léegi da ngay gis koo xam ne sax daf lay fekk fenn saaga la te warulaa saaga eh, yow xa déggoo li la wax police boo war na lijjanti kayit doo nelaw kan moo fi wax keroog <laughs> ay temps boo war na am am ay kayit yoo war lijjanti ci police mm-hmm. doo nelaw tey kayit rek nga war lijjanti di amul lan teewoog yoon dara dara dara da ngay tiit mm-hmm. mais léegi euh, boo xoolee euh, mm-hmm. lii xew nii nii ah, bu ngeen ci amee jàngat tuuti euh, di ngeen xam ne mille 2019 2023 la xew muy lan muy agression yu metti yi. waaw xam bu ngeen seetloo agression yi du 2024 du 2023 mais 2022 ñaata nit lañ ci faat ci agression. Mm. bari na ñaata doomu aadama lañ faat ci bari na bari mm. te yooyu yëpp dara warlu ko lu dul askan boo xamante ni ñoom léegi dañoo fi pone du ñu neex def. mais nag askan wi. Mm-hmm. Euh, maanaam danga naan ay ndaw ñoo xam ne. Mm-hmm. maanaam dañ leen a yeddul ci wala boog yedd nañ leen ci nit day ànd ak ngoram. ànd ak dignitéem ànd ak dal. Mhm. mais boo ne askan bi. Mhm. da ngay tooñ ñeneen. non damay dikk. waa dikkal. Mhm. maanaam bu ma nee askan bu fipp boo xamante ni léegi lu leen neex def mooy askan boo xamante ni ñi leen war na teg ci yoon ñooñu lañ xàmmee tut ak ñi teguwut ci yoon. comprendre nga cest à que bu një bu expliqué naa la bu njëkk ni mu daan demee ak léegi ni mu demee léegi askan bi dañuy xool ne ah ñun kat. léegi lii mooy logique logique bi la ñuy def lii logique lii la ñuy def comprendre nga. Mm. léegi kenn ku nekk da nga nekk sa yoonu bopp. maanaam sa yoonu bopp yoonu bopp mooy man li ja li ma jàpp ne mooy logique bi loolu laay doxee. mais am na ñoo xamante ni ñoom dañoo jàpp ne tey jii agression bii rek. mooy logique mooy solution bi mooy logique bi ci ñoom quoi. pour am mm. très bien ñoom jàpp nañ ne lii rek mooy logique bi ci moom. Mm-hmm. parce que da toujours chaque chaque mois waxuma chaque année mais chaque mois agression bi day gën di augmenter. Mm-hmm. si day ko boo xoolee boo xoolee taux bi bi biñ ko biñ ko biñ ko classé. Hmm. maanaam Sénégal bokk na ci ñi jiitu ci agression ci biir réew mi ci violation bi yu demee noonu cest à que réew la boo xamante ni toujours rek euh, ñaawte fi day yokk hmm. te lii ko yokk yii dong la mooy ñenn ci ndaw ñi gëm nañ na ñoom agression moo leen di may hmm. ñenn ci ci ci ci ci ñi nga xamante ni itam nekkoon nañ euh, ca camp ba camp militaire ba def nañ formation ba pare ba jàpp nañ leen war a jox ay lijaas ñu libéré leen ñoom ñu jàpp ne agression moo leen di may xam nga toujours dama naan la ñii di ay ñii di armée wu yor seen i 4 yu baax. Mm. yor seen ay armes yu baax. Mm. kàggulu def leneen ak leneen ak leneen. Mm. ñëw taxaw ci station jàmbur duñ duñ dem ci kër jàmbur ci station jàmbur la ñuy taxaw wala kenkaayir yu am xaalis yi. la ñuy dem taxaw ne dañuy jël li ñuy jël. ba doyal dem ah. am nañ doole ñooñu ñooñu ñooñu duñu duñu duñu duñu duñu. duñu ay coomo booy yi di nekk fii di 15 ans dañuy dem di agressé luñ luñ tuxe. du ñooñu ñu koy def ay noobul lañ. si parce que matériel noobul lañ yor. war a taxaw doo gis mukk ñu ne la police dem na attaqué leen dem nañ police ñëw na ngay dégg. dem nañ mm. police ñëw na ngay dégg. doo dégg itam ñu ne police jàpp na leen. mas ngaa dégg ñu ne ñu ne kii police jàpp mm-hmm. ko dégg. mas dégg ñu ñu nga station diw. Mm-hmm. police nga police fekk na leen fa. Mm-hmm. li amoon station bi la fois passé fii ndaamaatu gi ndaamaatu la xewee ndaamaatu. man biñu ne ma biñu ne ma euh, station Kër Baay Laat bii nekk ndaamaatu. biñu ne moom la. dama ne c'est pas vrai xam nga dama ne c'est pas vrai. station bi ak police bi nii lañ def. benn lañ. Mm-hmm. moo tax bi ñu ne foofu la man ba tey jii nii may wax sax gëmu ma ne station boobu la. boo ko toppee day xóot moom. <laughs> c'est-à-dire yooyu da ci am solo dafa am loo xamante ni aussi nga naan. Mm-hmm. mais ñii nii am nañu baraalon. Mm-hmm. est-ce que amul lu xew boo boo lu nga wax. bokkut ak sañ naa ñaaw njort. très bien bokkut ak sañ naa ñaaw njort itam. voilà bokkut ak xale yi nga xamante ni dañuy dem agressé benn benn benn vélo. wala benn moto ba faat ci nit. ñoom duñ faat. duñ faat de est-ce que mas ngaa di ñoom ñoo faat diw du ñu fàtt ñoom koy dañuy yeew blessé ngay dégg wala yeew nañ diw wala dikk nañ taxaw armée jël dem mm-hmm. ñu faat mais ñenn ñooy faat mooy booy nga xamante ni peut-être xamuñu li agression ba pare mooy comme li ma mm-hmm. Mm-hmm. laataa ñu jox kamoor comme li ma doon wax keroog xam nga tey sama genre yi nga xam ne seen téléphone bi ñu yor sax pour ñu ibbi ko problème la booy yi nga xam ne du tekkiwuñ dara ay bandi salte loolu la bandi salté ñooy fekk ab benn waaye bu yor téléphone am ñu gaañ ko ci te yow téléphone ba boo kamooree ngi nii téléphone ba ginnaaw yëpp dafa toj mais fi mu toll nii man naa jaar fi écran bi tàkk nga jàpp ne téléphone bu baax la. kamoon nañ la bàyyi nga yow itam nga joxe sa xalaat. <laughs> waaw euh, jërëjëf fi Fallou daanelee rek laa yëkkatee muy euh, ñi nga xamante ni si nii taarikaal la ñuy agressé agressation noble yi noonu laa ko mën a waxee ñi nga xamante ni si ni ay noble lañu euh, Fallou da ko wax sànq junj ko. am na ñoo xamante ni si ni bala ñoo jug daal am fu ñu bàyyi ay pointe ñoo xamante ni si ni ay gang lañu bàyyi sa tali ba feene bàyyi kee sa rond ba pour que nga xamante ni si ñuy déggante seeni biir tey bu nit di yëkkatee rek bu bu bu fàll gi bu gisee ni fàll moom mu ngi ñëw mhm. rek ñu woo ko ni ko a ngi ñëw defal li ngay def gaaw bu dee mhm. tamit mu jóob caaca ngi ñëw ñu ne ko ah defal gaaw dans deux minutes maanaam dañuy dañuy pare dañuy planifier seen lépp seen lépp ba pare ànd ak trois personnes wala lu ko ëpp ñoo màbb sa këru jàmbur gi tey def ko loo xamante ni si nii moom mooy lool boo ko tëgg ñi nga xamante ni si nii nga xamante ni si nii moom mooy lool sama classe yi nga xamante ni si rek ay kii la ñu xamuñu si loolu rek comme ni ko waxee sànq rek gis naa mu jóg caat yor téléphone boo mm-hmm. xamante ni si ni moom mooy loolu euh, boo gisee ak écran bi rek nga yaakaar ni mooy loolu rek nga jël ko këf ko daal koy daw ba gaañ ko am na yoo xamante ni si ni moom mooy loolu ba tey day day day dox lépp si insécurité bi gis nga tey euh, ba tey du du du police bi tey euh, moom mooy wala gendarmerie bi tey moom mooy dox lépp loolu tey dafa baax tamit ñi nga xamante ni si ñooy ñooy yeewoo sa koñ ba ñi nga xamante ni si ay jeunes lañu tey ñu ni dañoo bëgg seen euh, koñ ñoom jàpp nañ ñu tey balaa policier ñëw wala balaa kenn ñëw ñoom ñoo war a njëkk a jug tey défendre lool duñu xaar sax mhm. agresseur bi ñëw duñu xaar sax koo xamante ni si nii ab ab mandikal la ñëw di di di di def na ko su dul noonu mhm. gis nga tey loolu tey dafay jar ñu waxtaan mhm. dafay jar ñu toog waxtaan tey laataa police bi ñëw pour man loolu euh, euh, police bi yooyu noonu tey deuxième la tey bu buñ buñ ko reglee ba pare wala boog buñ xamee ne dem nañ ba sës ñu soog a woo police ka nii lii ak lii ak lii ak lii bu ko defee tey mooy loolu ñu ñu xool naka lañ koy gérer suñu biir mm-hmm. mais tey kër goo dugg wala koñ boo dugg ñun leen ñii la bandi gën a yeb bërki dem dajji woon na fi bi dugg jàmbur wala bërki démb dugg na kër jàmbur wala yooyu noonu tey yooyu noonu tey ñàkk euh, Pastef daf see daf see daf see am gis nga tey euh, bu ñu xamee ni tey euh, man di jëkkamari tey ab ab ab voleur laa tey dugg naa si rajo bi jël naa fi benn machine dem bu ñaareel bi duma fi ñëwaat ndax boobaa boobu noonu dañ may préparé wu tey ndax dañ naa ma euh, euh, caga kenn du ko nax ñaari yoon loolu mm-hmm. mooy am si mbir mi tey mm-hmm. jël naa dugg naa fi jël naa fi benn machine dem naa sama yoon ba léegi dañ may préparé wu tey xam kan moo ko def tey bu ko defee ñu mën koo jàpp buñ ko mm-hmm. mënul kiyal seen bopp ñu yóbbu ko police am na yoo xamante ni si nii day day jar waajal toog waxtaan tey bu ko defee ñi nga xamante ni si ñoom ñooy yeewoo su koñ ba tey ñu kii ko ah, sànq tamit yéen a ngi doon junj foo xamante ni si ni xam naa daamen tëjagoo leen ko muy ah, wàllum sàcc xale yi mm-hmm. jamono jii nii tey ah, def see bëri surtout moment yi nii moment élection yi Fallou wax na ko sànq la mm-hmm. muy moment yi rek la la lay am muy moment politique bi wala moment élection bi ñëwee sàcc xale yi day day bëri lool takkar naa si bi tey am na yoo xamante ni si ni tey euh, suñu suñu suñu parents yi ñoo ñoo war a def euh, taxaw seetlu. Mhm. xam nga sama classe gi moom euh, kenn mënuñu parents yi mënuñoo veiller si ñun mais dañ dañ dañ ñu nañ conseiller ni leen lii ak lii ak lii tey moment bii ni mooy loolu nañu def prudent. mais bu dee xale yi nga xamante ni si ni euh, ku si mel ni euh, xale boo xamante ni si ni il a de dix ans jëm kaw. di mm-hmm. jàng primaire jàpp naan tey war nañ ko wutal benn mbuto jegata boo xamante ni si ni abonné ko bu ko defee balaa euh, ñoo wàcc rek mu dem taxa buntu école ba mu dem jëliju ko. Mm-hmm. mu ñë mu ñëwaat yóbbu ko. buy jàngiwaat la même chose pare mu mu yóbbu ko balaa muy wàcc tamit mooy loolu mais tey ji suñ ñun ñi tey dañu dañu dañoo dañoo sàggane suñ bopp tey heure heure bu jàngi mais itam kamoor yi mm-hmm. xale yi itam dafa war a yaru ci du ñaan xaalis ñun daaw ñu nangu nit yóbbaale ñu wala ñuy ñaan xaalis gis nga li ma wax léegi mm-hmm. tibb rëy mm-hmm. dafay rey borom te fekk suur dong la bëggoon. xal waaw. xam nga euh, yaa ngi wax sànq jamono yooyu ak yi bokkuñu ndax jamono yu njëkk ya ak yi bokkuñu tey sama xale bi la gën a mujjee juddu tey boo ko mayoon juróom mën la bëgguma juróom. waaw cent franc jëm. xale yi juróom lañ daan ñaan waaye léegi. waaw mu ngi noonu léegi boo ko mayee juróom mu ne la bëgguma lii lii laa bëgg tey. boo ko defee ñoom moom tamit au lieu que parent bi tey mu yar ko si loolu noonu tey mais du ko def donc day yëkkati. ñaar té téeméera wala mille francs jox ko ko ni ko demal mhm. après léegi bu tey si mbedd mi tey mu gisanteeg benn lëus tey moom mi nga xamante ni si nii woy politicien la tey ba te sax mën naa doon tonton saay saay mi ngi noonu bëgg ko jox ko jox ko ko cinq mille wala lu ko ëpp ni ko am lii duggal si oto bi ma yóbbu la tey mu jàdd ak moom mu mu def kon mu def ko ne ko sutu noonu ba même bu ko sacrifié wul sax mu def ko yëfi saay-saay tëddee ko yàq yàq àddunay xale bi yàq adduna àddunay euh, yàq yàq adduna am tamit mhm. gis nga yooyu noonu tey parents yi dañoo war a vigilant tey si si si si xale yi tamit te surtout nga xam ne jamono yi daanaka nit ñi ñu bari dañu feebar. waaw ñu bari dañuy feebar xam nga waaw kay xam nga surtout euh, parents yi nga xam ne dañuy feebar tamit euh, duñ duñ duñ duñ duñ veillé seen doomi tey. Mhm. ndax euh, benn mu job caat tey moo mooy mooy feebar. dugg si néegam benn doomam fekk ko fi mu mu ñëw ni ko dàq ko ni ko demal si biti. demal ci biti waaw damaa feebar. léegi tamit bu génnee tey. wala waxtu añ. waaw wala waxtu añ mu génn tey. ñu ñu jël ko foofu noonu tey gis nga tey loo feebar feebar feebar feebar feebar sa doom war nga ko war a mën a occuper toppatoo ko ba du génn di dem ji feneen. Mhm. boobaa tey jii nii tey yaa ngi koy aar te yaa ngi koy yar te it yaa ngi ko tamit ni nga koy yaraale tey xale warut a bëgg xaalis xale bu dee ndaw la war a toll si jàng na jàng ji bu bu koy parents yi mi du jox bu bu xale bu doon laaj bu njëkk ba rek ñu ñu mbaj ko. Mhm. laaj rek buñ ko defee warul bëri ñaan waaw warul bëri ñaan mais léegi tamit day ñaan ñu yëkkati jox ko bu jooyee ñu ni ko noppil neexale ko xaalis ko xaalis tey day dem ba day tam xaalis boobu noonu tey hmm. yooyu noonu nañ ci suñu bopp nañ ci yaraat njaboot yi bu ko defee bu baax a baax ñu ñu def vigilant bu baax a baax a baax a baax te ñu jàppale ñu suñu ñu état bi ñun jàppale ñu suñu sécurité bii ni tey ñu jàppale sécurité bi waaw ñu jàppale suñu sécurité bi yokk poste de police yi tamit waa koñ ba ñi nga xamante ni si ñoo yeewoo sa koñ ba bu ñu xaar kenn. ñu bañ a ñu bañ farak caay-caay. mi ngi noonu. yow Fallou. sa waa ji foog nga koy dimbale ci wolof de. <laughs> li mu bëgg a wax doo doo doo doo kii quoi foog nga koy dimbale daa déggagul wolof. <laughs> mais wax na lu am solo da nga léegi la jàmbaar la jàmbaar la kay. <laughs> mi noonu waaw sëñ yéen comme ni ko Kamori waxee euh, am na yooyu sax euh, ji nga ni mu ci yeggee maanaam waxtu añ ak yenn waxtu yi xale yi ni dàq ak mm-hmm. ñaan xaalis comme dëkk bi amatul sécurité dara wóoratul dara dara dara wóoratul mm-hmm. xale yi dañoo war di oto sax bu mu leen bu ñu nangu mu yóbbaale leen surtout ment élèves yi surtout gone gu jigéen goo xam ne dem na ba commencé sax dara mm-hmm. parce que yi moy loolu gars yi mooy loolu fan yële maa ngi seetaan benn vidéo boo xam ne ndaw si soxna si dane man dañuy fëgg sama kër gi nee na nag ab puune dafa ne ci kër nee na dañuy fëgg këram gi toujours toujours nee na xamul ba xam moom lañu soxla xamul ba xam loolu lañ soxla mhm. xam nga loolu am dëkk bi amatul sécurité euh, loolu nag euh, nekk lu doy waar kon ñi nga xam ne ñoo dëkk ci Touba ak Mbacké mhm. euh, nan ñu doolee dimbale rek mhm. ñun ñuy wàcc guddi daal xam nañ ne dëkk bi amatul sécurité mais mais mais tamit. ay xale yu ndaw ngay gis. Mhm. ma fii booy wàcc ci côté doodaan bii rek man maa ngi ma ne leen billaay boo ma laalee da xam. Mhm. Mhm. xale yu ndaw ngay gis ñuy taxaw xale bu ndaw boo xam ne sa dooma ko mag. moom mooy comme li ma doon wax ci bandi salte yi xam nga yéen wax ngeen bandi noble yi mooy ñi nga xam ne ñooy dem tey yaa ngi dégg fan yële e, enan siin la xaw ma. ñaata million lañ fa jël. bari na ci biir Touba gi. waaw bu metti loolu xam nga bandi yooyu. ñoom ngeen tuddee ay bandi silvisé mm-hmm. ndax ñoom mën nañoo jël sa alal te boo fippu duñ la kii mais kii da ngay gis xale bu ndaw boo xam tekkiwul dara gis la nga yor lampe di nit sax mu jàpp ne portable la mu la xës dara mm-hmm. comme ni ma ko waxee kamoor yi nga xam ne téléphone am day palanqué mën naa jaar fii di nit nga yaakaar lu baax la yor te fekk nga gaañ ko ca te moom am na am na ñu ko yaakaar ñu bari ñoo xam dañu topp ci moom ñu mu leen ñu mu war a teral ñu war a dundal ñu war a jàppale seen seen dund. Mm-hmm. il faut ñu bàyyi xel daal ne xam ne suñu suñu dëkk bi daal amul wax dëgg yàlla kaaraange gi des na. Mm-hmm. surtout nag ñi dëkk ci aneer yi. Mm-hmm. comme lu mel ne mm, waaw loolu moom lu ko war a xiif la wala sonn. <laughs> sonn des waaw mën naa ne. <laughs> <laughs> comme ñu mel ne ñu dëkk ci côté suñu suñu dëkk bépp yëpp daal yëpp yëpp parce que su ma limee tey damay bàyyi waa saam dafa mhm. mu toll nii tey bu ñu wowoon jamono dana ne suñu koñ boobu naa ndax yaa ngi fàttaliku ay jamono femme bi nga xam ne ni dafa deewoon ñu du dañ xaw ma dañ ko rey xaw ma ci tabax tabaxu yëgagut lañ ko fekk mhm. ak yeneen ak yeneen rikk nan ñu dimbale suñu takk deri ay jàmbaar ngeen wax dëgg yàlla dëgg la euh, euh, fexe leen rek ñu delloo leen ne woon rek nañ delluwaat fañ newoon ba kenn rek mën naa garder garder ab dëkk mm-hmm. waaw su ko defee ñu ñu bàyyi xel lool bu baax a baax a baax mm-hmm. euh, gën a bàyyi xel itam ñi dëkk ci yeneen dëkk yu quartier yi man damay ñibbi mbusoobe yenn saa yi heure bu ne laay wàcc mosuma dajee foofu ak ramas mm-hmm. te foofu moo war di gën a am ramas suñu dëkk suñu koñ bii ci ginnaaw daal salaam mbusoobe gii man moo tax ba may dox sax fàtte sama carte d'identité damay tiit wala mu fàtte sama carte presse parce que maa ngi jàpp ne nit koo xam ne nii nit ku jub nga koy dox boo fàttewul boo fàtte nag moom fi lañ ko fekk war ngaa mën a yor sa carte d'identité bañ xam wala nga yor sa carte pere wala nga yor lay yu dëgër yoo xam danañ xam ne yow mii lu leer ngay nga ngay dox mais koo xam ne dafay dox ŋàbb ab morsom di ko di ko lok wala mu di ko seex wala mu de ko teg ci gimiñam kooku moom wax dëgg yàlla war nañ ko mën a fanaanal foo xam ne daañu yedd ko bu baax ba bu ëllëgee dina xam ne dox aw jub moo gën dox dox lu tu jub su ko defee rek ñu fàttali mbokk yi ñuy déglu 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 suñu jeexalee émission bi képp koo xam ne am nga loon ci bëgg a dolli mën nga ñëw envoyé message wala bu fekkee am nga information boo ñu yokkal sa koñ comme yenn yi ñu joxoon mën nga ñu envoyé message whatsapp ci 77 177 43 70 77 177 43 70 su ko defee rek ñuy fàttali lancé woon nañ fi loo xam ne ci 2024 bi ci xale yu jigéen ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci tund bi te bëgg a euh, def euh, commerce euh, commercial agent commercial mën nañu woote ci 77 177 43 70 waaye loolu nag bu émission bi jeexee lay doon su ko defee man damay daal di tàggatoo foofu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu mboolem suñu auditeurs yi waa Saam sëñ Aliou Sène foofu ci Saam sëñ Mor Wilane vraiment di ku baax ñu ngi nuyu ñëpp ak euh, ñoom laat aan ay Baye du fijoor ak ñeneen ak ñeneen euh, Ami Mbodj ak ñoom ñëpp vraiment mun bu ñu limee dañ dañ dul matal ñi ñuy déglu ci Mbàkke surtout ma di ñu ngi tudd sécurité yam ci Touba rek waaye waa Mbàkke njakalak gi waa route de ñooñu ñëpp duñ leen fàtte waaw képp koo xam ne am nga ci ay jafe-jafe daal am loo xam ne bëgg nga ñu reeteet ko rajo moom du animation ba rek wala xasaayit ba wala musique ya ngay teg rek nga ne rajo ba neex na waaye fexeel nan la la jàppalee ci sa kaaraange ba booy julli waxtu julli bu jotee ngay dem jàkka doo dox di gestoo mhm. ndax keroog bi ñu fi invité Baye Xabaan soow nee na seen koñ boobu julli jóg fa julli gee sax problème la kon loolu lu mat a bàyyi xel la kon sëñ Fall naa leen bàyyi ngeen yeggale su ko defee ñun ñu tàggoo fii di dig dajee si biir jërë ngeen <laughs> waaw saa na taxaw suñ <laughs> nu mu ni ñuy waxtaan ci sécurité ña am ku taxaw ni gàddul aw yatam. <laughs> <laughs> waxtu waxtu li ci des bëreetul de waaw waxtu li ci xam naa di di di di waxaat gars yi rek comme ñu gën a vigilant rek ñi nga xam ñoo nekk ci koñ surtout jeunesse bi aussi ñuy mobiliser wu seen koñ di ko xool comme yenn association yi nga xam ñu ngi ci koñ bi bu ñu mënee jël ñett wala ñeent ñoo xamante ni. dañ man di surveiller dëkk bi ba yenn heures yi loolu tamit ci gox seen quartier ba yenn heures yi parce que damay gis yenn village yi di ko def faral di def lee des fois di jël ay euh, quelque euh, personnes di leen fay par mois bu ko defee ñoom ñi vérifier dëkk bi ba yenn heures yi ñu daal dem tëddi loolu tamit euh, day am solo ci yenn gox yi yenn quartier yi nañ ko fexee association yi jël engagement yooyu pour seen ñu am ay nit yoo xam ne dañuy mën a taxawu lool ñu leen di fay par mois bu ko defee kaaraange gën fa yokk donte ni euh, police mënul di wàcc ci terrain bi fépp chaque guddi mu wër fépp mënul nekk day wër fii tey suba mu aw fële ginnaaw suba mu aw fee mais pour ngeen yombal ko yéen tamit seen kaaraange da ngeen di jéem a xool nu ngeen ci mën a xeexee bu ko defee mbir mi daal di sotti ngeen di def ay saytu di visiter maanaam comme ni ñuy entretien yi mbir dee ko entretien seen gox di di di xool secteur yi baaxu yu wóor ak yooyu bu ca manqué courant ngeen mobiliser wu demander pour defal leen courant parce que des fois da ngay toog mobiliser wu ne lii lañ bëgg bu ko defee ngeen médiatiser kon nit ñi xam ne lii ngeen bëgg te boobaa tamit incha allah Baol Média du ci des ginnaaw benn yoon képp koo xamante ni da xeex la sa gox ñun boo ñu wooyee dañuy ñëw ànd ceeg yow parce que loolu moo fi bàyyi te ci loolu la la ñuy àndeek li nga xamante ni moo di euh, askan bi yëpp kon noonu la seen mission xew-xew bés bi la woon ngeen ci doon ànd ak euh, Mouhamadou Diop Thiat euh, ñuy am mbégte su nekk nag di ak moom ci bi la émission hmm, waaw El a lu moo nekkoon ci kàddu gi di tuub bu baax di jéggluwaat ñëpp lépp lu ñu fi wax ci lu jub loolu lañ lu fi dëng suñu ak ñàkkamat la yàlla mooy boroom jàmm nag te ku mu may jàmm nga am jàmm kon lu ñu def lu dul di ko ñaan mu may ñu jàmm jërë ngeen jëf ayca mi ngi noonu jërë ngeen jëf taarikaala di mbégee bu baax ku kulóom képp koo xamante ni rek yaa ngi doon bàyyee xel Baol Média 88 point 5 FM rawatina seen émission bu mag bi di euh, xew-xew bés bi di am ay bés yu jot taarkal ca di leen kontaanee bu baax di jégalu nag bu dee wax nañ fi naka sudul noonu taarkal ñu ngi si jégalu bu baax a baax ca di leen jox rendez-vous à la prochaine même heure même fréquence sur FM jaay jëfal leen bu baax merci beaucoup.